tension politique dina ma servir de transition pour ñu mëna a waxtaan ci li nga xamante ne xew ces derniers temps muy euh, procédure judiciaire yi nga xamante ne euh, moom Ousmane Sonko euh, gàllankoor na wala gàllankoorul sa candidature mais li wërté wóor moy condamné nañ ko à 6 mois <coughs> dommages et intérêt en faveur de du plaignant Mame Mbaye lolu ban conséquences lay am ci Ousmane Sonko parce que euh, booba léegi je pense que ni sénégalais yëpp xam nañ ko té ñëpp euh, ñu ngi koy wax l'enjeu de toutes ces procédures contre Ousmane Sonko enjeu bi moom mooy bokkam te euh, gis nañ né tamit ñi nga xamanté ni ñom ñoo jàkkaarloo ak Ousmane Sonko li gëna euh sabab sen engouement ci procédure yi top Ousmane Sonko mom moy bu mu bok ci élection. loolu moom moo euh, ñor gaay bu mu bokk ci élection loolu moom moo waral ay la yéwén euh, ay ay ay plainte à n'en plus finir parce que nit ki bu defee quinze ans ci inspection des impôts génn ne la fikki dërëm bu ñu euh, sàcc kenn mënuma koo jiiñ amaan na gars yi càmbar nañ ba sonn gisuñu ñu ne non moom mii sax daanaka ibaadu la wax ay waxu salafisme ak ay lu nek jàllul ñen ñi di jema def des ramifications avec le MFDC jàllul fa nga xamantene fa la dal liggéeyee di fa suturlu ñu ràjjee ko fa ay la yewen lan mo dess lan mo dess lu lo xamantene ay la yewen képp kuy politique wala ngay wax ci pénc mi mën nañ la ko porter plainte une diffamation Si le président Macky Sall moom président Wade mi ngi tabax ci Wakam bu président de la République porte une plainte pour diffamation du son candidat président Macky Sall dans la foulée de la lutte contre la troisième candidature du président Wade que nous euh, euh, nañ ko déloger du palais suñu ko topone pour appel à l'insurrection il ne serait pas candidat en 2012 parce que le président Ouad deful lolu politique gentleman la politique élévation la politique responsabilité voulait permettre d'accepter la contradiction tay malheureusement ci Sénégal fi ñu une opposition j'ouvre les guillemets vous euh, nous réduire à sa plus simple expression l'opposition dépasse une expression mais opposition participation ci élection moment moko alors Ousmane Sonko bañu né euh ko 6 mois est-ce que ko wala ko bok dama bëgg rek l'analyse juridique pour wané rek juridique rek rek rek rek mom di juridique mom japp Ousmane Sonko bu si la décision devient définitive Ousmane Sonko mënut ci élection loolu je pense que dafa war a leer ci boppu sénégalais yi ma euh, dellu ci article L30 article L30 dafa ne ne pas être inscrit sur la liste électorale pendant un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive les condamnés soit pour un délit visé à l'article L29-3 délit yooyu noonu nga xamante ne cité nañ à l'article L29-3 mooy tout autre délit yi nga xamante ni cité wuñu leen à l'article L29-2 donc kon jàpp leen ni délit yi nga xamante ne moom la wax ne ne pas être inscrit sur les listes électorales pour une durée de 5 ans durée délit yooyu noonu pratiquement c' tous les délits autre que yi ñu cité ci tiré 3 bi yi ñu cité ci tiré 3 bi moom moo nekkoon ay vol escroquerie abus de confiance trafic de stupéfiants ainsi de suite yooyu Ousmane Sonko bokk ci mais tout autre délit yu ñu cité wul foofu loolu la L29-3 wax mu kon donc kep kuñ ci euh yow munoo bok mu ne kuñ ci dan à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois donc loolu noonu Ousmane Sonko bokk ci parce que dañ ne sans sursis Ousmane Sonko avec sursis là. Légui ñu article bi di continuer ba légui mu ne képp ku ñu daan à à une peine d'emprisonnement avec sursis égal ou supérieur à 3 mois Lolu Ousmane Sonko da ci bok. égal ou supérieur à 3 mois avec sursis Ousmane Sonko 6 mois donc supérieur à 3 mois avec sursis donc kon impérativement jarul sax nous avons juridiquement fait la xar la muus juridiquement Ousmane Sonko si la décision est définitive Ousmane Sonko beaucoup. mais ce qui est doy waarati c'est te euh, j'attire l'attention de la population de Ziguinchor lundi Ousmane Sonko demain, ak kii di le procès de Beauté quelle que soit la condamnation pour viol quelle que soit la condamnation si vous sax nan circonstances euh, atténuantes, ainsi de suite Si ko condamné un mois un mois sax veut na 15 jours si ko condamné 6 heures de temps ci affaire viol il ne sera plus maire de Ziguinchor waaw parce que code des collectivités locales à son article 135 y pas la maire ou le conseil municipal si condamner condamné pour crime sa révocation est de droit Madame fofu jarul sax ñuy xooli yan mécanisme la ñuy uti mécanisme la ñuy utiliser pour révoquer ko dañ la révocation est de droit donc kon Ousmane Sonko lundi bi ni mu jëm quel soit li mëna xew ci euh, euh, procès bi buñ ko ci condamné ba condamnation bi définitive il ne sera plus maire de Ziguinchor manam askan wi ki nga xamante ne moom la askanu Ziguinchor wolu ne ko sunu maire neuf euh, domaines de compétences transférés ñu jox ko ko loolu bu mbirum suite Beauté mbirum euh, tappale mbirum tiaxan bi euh, opposé ko ak Adji Sarr boobu buñ ko ci daanee moom dootul nekkati maire Ziguinchor ça veut dire que le mal est profond maintenant même l'expression de la volonté populaire muy le suffrage universel ça peut être remis en cause

un réquisitoire définitif Nous définitif. une ordonnance de renvoi ba la ko euh, chambre criminelle mm, le médecin euh, gynécologue wax ñu ne garaawul Adji Sarr ci boppam mi porte plainte wax ne complot la diw moo ko organisé ñu ne garaawul loolu yëpp ñu ne nañ dem maintenant ci chambre criminelle weesu nañ actuellement nekk ci régime boo xamante les libertés vraiment sont restreintes Oustas bi nga xamantene mom moom Ousmane Sonko nga téré ko don candidat dëkk bi mën na yëngu mën na ba jeex loolu lañ ko loolu lañ ko topé loolu lañ wax d'accord y a pas de souci euh koku nañu li def appel à l'insurrection la mais nañu dégg gum euh, kii nii nga xamantene mom appel la bok c'est mettre le pays à feu et à sang. Pardon? Empêcher aujourd'hui, violer ses droits de se présenter c'est vouloir mettre le pays à feu et à sang. En tout empêcher au président Macky Sall aujourd'hui le droit de pouvoir se présenter, c'est mettre le pays à feu et à sang. ok Légui, ki wax li mom moy Omar Ba Omar Ba moy euh, maireu Ndiop di responsable APR nee na ku empêcher le président Macky Sall président moom moo bindal bopam. Mom moo ne moom mënul doon candidat kenn waxu ko ko kenn forcé wu ko ba mu naan bloqué na mbir yi 2024 moom mënul doon candidat ka mu joxoon pour mu réviser la constitution kooku répété la ñetti yoon ne la moom mënul doon candidat ña yoroon campagne ba le premier ministre euh, Mohamed Boun Abdallah john maître elage Hadj Omar Youm ainsi de suite ainsi de suite presque tous les responsables de la paire ont dit que ni président Macky Sall bokk 2024 mom nee ku empêcher président Macky Sall bokk 2024 de mettre ce pays là à feu et à sang mom moko wax mom Omar Ba waaye la yewen oustaz bi <laughs> lool rek la ci Sonko de ku empêcher Ousmane Sonko bokk bi day tak ba oustaz ba ma prison ngi doxi ban Sénégal finalement oustaz ba la wax loolu la waji wax waji mi ngi doxi oustaz ba ma nga prison ba finalement cette intimidation qui foulait au pied les règles les plus élémentaires ci démocratie muy liberté d'expression pour man règle bu élémentaire la ci démocratie fim mu toll nii euh, ay la yewen mënul comprendre dëkk bu ñu maintenant moment bi nga xamanteni ñu condamné Ousmane Sonko moment bu décisif la ci Pastef mais ci Ousmane Sonko intitut personnel moment bobu non. mais c'est moment bobu non le ki nga xamantene mom moom nee na doomu ndeyam la yow sa doomu nday nek ci ay euh, tolof tolof ñu condamné ko di lam-laame naan dina bokkam du bokk ba condamnation bi confirmer que ni mom du bokk yow sa doomu nday bobu nga tey di charger ci jour bobu noonu condamnation bi am muy le maire Barthélémy Diaz le maire Barthélémy Diaz nee mom mo nek initiative dialogue bi nga xamantene mom le président Macky Sall euh, woté mom moy initiative bi mom mom moy l'initiateur c'est lui qui a eu l'initiative mom nee na du candidat mom nee na sax même bu bëggoon don candidat sa candidature ne souffrirait d'aucune ambiguïté d'autant plus que mom la muy négocier pour ñom Ousmane Sonko la pour ñom Khalifa Sall la pour ñom Karim Wade la waaye du pour mom Barth dafa faté wala dafa fokk ne ñun danoo faté ne yat bi mi ngi ci kawam battre dans l'affaire affaire Ndiaga Diouf nga xamné mi ngi cour suprême diko xaar ba légui mais bat fofu tamit buñ ko ci dané pour crime du pas maire euh, euh, article 61 constitution repris par l'article 55 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale wax vous ko pas ci pour crime bat ne sera plus maire donc il ne nous dit pas monsieur Diaz que ni amo intérêt pour négocier et et la ñu ne léegi dañuy waxtaan dialogue politique wala dialogue national intérêt Sénégal yitteelul ña nga xamante ne ñooy dialogue parce que nee nañu euh, moom moom moom moom moom euh, euh, le maire honoré Khalifa Sall moom mooy wax man naa bokk rek maanaam kon waxtaan wi dialogue bi la ko tax a jóg du dara lul bokk bokk kese finalement l'intérêt électoral prime sur même le vécu quotidien des Sénégalais qui est catastrophique en ce moment-là am na dans une situation qui est très réew mais nañ bokk rek euh, Khalifa Sall nee na na bokk rek que moom mo waral négociation yeeg nangam mais wax ji euh beuri rek nit ñi bañ a mais le maire Barthélémy Diaz ba muy le maire de Dakar ba il n'a pas rompu le dialogue la concertation les discussions Il a am ak le président y a eu le président Macky Sall yàgg il a muy avec ak président Macky Sall yàgg na président. Les Barth veut nous faire comprendre que Ousmane Sonko paaka ñaari de boire. parce que Ousmane Sonko moo ne de demal Ousmane Sonko moo de demul oui euh, man japp naa même s'il a informé Ousmane Sonko du ko wax ne boule demal parce que amana dem nga bëgg wala nga sa volonté dem waxtaan ak waji mais ay la yëwén bañi empêcher Khalifa Sall mu bokk bobu lu tax woote wolen leen ja dialogue parce que l'objectif était clair Khalifa Sall bu mu bokk kenn ken kenn ubbiwul buntu dialogue mom période bobu noonu ñu daan ci Khalifa Sall ba ne ko élection 2019 Khalifa Sall ak Karim Wade moment yoy nonou c'était les figures yi gënon a am solo ci opposition sénégalaise actuellement ñooñu nonou nekkatuñu ay menaces nekkatuñu ay dangers motax ñu mëna négocier pour ñu génn motax tax toutes ces procédures judiciaires là muy Ousmane Sonko muy demb Khalifa Sall ak Karim Wade lenn moko taxono jog moy écarter des candidats <coughs> parce que bu doon alalu askan wi lañuy saytu. si c'était l'argent du contribuable moom moo au-dessus des intérêts de ces procédures judiciaires tay deureum dugul dërëmu askan wi ci siwul et pourtant ñu ngi jéem fexé naka lañ leen di delloowaatee seen droit donc kon l'enjeu de ces procédures ce n'était pas euh, euh, une gestion transparente mais c'était que ni buñu ñu bokk tey seen popularité ci biir opposition bi wàññeeku na loolu moom mooy dëgg au profil au profit de Ousmane Sonko donc fi mu toll ni le danger bi war a mën a constituer un frein un blocage ci euh, a une forfaiture troisième candidature s'appelle Ousmane Sonko donc fi toi toll nii Karim Wade a Khalifa Sall le monde. parce que ñooñu tamit bu dëgg de dëgg rek fii mu toll nii Nous 10 de l'électorat. électorat donc nekkatuñu danger pour nous, nga xamante nous ñoom nous écarter des candidatures maintenant le danger s'appelle Ousmane Sonko et c'est lui qu'il faut euh, recaler président Macky Sall. bëgg na dialogue ni ko Barthélemy Diaz waxee président Macky Sall Barthélemy Diaz nee na ñu nitu jàmm la nitu jaloog la d'accord na ainsi de suite ainsi de suite kële nag moom Barthélemy Diaz nee nañu mu ngi gëmloo ne nitu fitna la ku dee sa yaay juraat ainsi de suite Barth koi Barth mi nga xamante ne tey man bi ku ma ne woon euh, taxawaayu Barth la la dama naan xeex bi combat politique bi Barth bu ñëwee danaan kii tooñ teggil sa loxo. Bart loolu lañ ko xamee boobu Bart lañ xam mais finalement sa Bart laa bi ñu dégg barki dee boo njaay ci ku nga ne sa doomu ndey la kooku am problème ak euh, le régime du ma ne ak justice parce que c'est un opposant radical mais Bart sa doomu ndey bi nekk ci tolof tolof yooyu ngay jug di charger sa doomu ndey naan moom moo ne ku dee sa yaay juraat moo ko bëgg a doon candidat euh, loolu la ko jaral man bëgg a doon candidat waxtaan la ma jaral c'est quand même euh, <laughs> te Bart yàgg na nekk maire Mermoz Sacré-Cœur mais Bart mosoo nekk maire Dakar Miri Dakar moom Bart mosoo cee candidat bay nekk maire parce que nee na yàgg na gagné yàggoo gagné Khalifa moo doon gagné. loolu moom mooy dëgg ji Front Sigil Sénégal moom moo gagné en 2019 2009 Front Sigil Sénégal c'était le front de toute l'opposition Malick Gakou nekk président conseil régional de Dakar Khalifa Sall nekk maire Dakar toute l'opposition était réunie autour pour Khalifa Sall mener le maire de Dakar même Khalifa Sall n'avait pas euh, cette étoffe euh, de popularité mais moment bobu nonu dafa amone lu duggoon ci biir muy Karim Wade dafa liste ci euh, PDS et il y avait une campagne de diabolisation bu metti à l'endroit de Karim Wade né mom lañ bëgg def maire Dakar sénégalais yi xex Karim Wade tax ñu votel le sigil Sénégal loolu moom moo def Khalifa Sall maire de Dakar en 2009 en 2014 Khalifa Sall tamit jugaat xeexaat gagné mairie de Dakar Barthélemy Dias kañ nga gagné kon mairie de Dakar kañ nga gagné département Dakar mënuñoo comprendre xamuñu kañ la alors bii passé ñu nekk ci coalition bu tudd Yewwi Askan Khalifa Sall na wax kan mo candidat pour euh, euh, yewi askan wi Dakar na ko Khalifa Sall c'était Soham euh, Wardini le choix prioritaire le choix premier du président Khalifa Sall c'était madame Soham Wardini parce que yewi askan wi tamit loolu wax ci Yewwi Askan Wi dafa ne maire yi nga xamante ne les maires sortants ñoom ñooy prioritaire pour ñu mën leen investiraat reconduire leen ñu défendre seen bilan mais lan moo waral ñu def en torse ci charte Yewwi Askan Wi boobu noonu nga xamante ne d'accord ma ci woon daloon naa ci euh, Ousmane Sonko mi nga xamante ne moom moo jëloon en bandoulière pour yow nga nekk tête de liste Barthélémy Diaz en violation des euh, des règles yi nga xamante ne mi ngi ci biir Yewwi Askan Wi Ousmane Sonko violé les règles de Yewwi Askan Wi pour xeexal la yow nga nekk euh, maire Dakar tay nga euh, Ousmane Sonko du ci dara pourquoi waxoko won bobu le PASTEF a contribué de manière décisive ci élection wu Barthélemy Diaz maire de Dakar lo xamantene buñu bu ñu confirmer euh, la la jotale woon ak mbirum Ndiaga Diouf yow mën nga perdre sa poste maire bobu non. finalement Bart Bart mais mairie bi wala député bi les conserver jàmm Sénégal la bëgg wala Bart l'a la bëgg bëgg ki nga xamanté ne mom néna na constitution néna nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs Bart nañu non mom euh loolu duñ ci juboo quoi dañ ko tégué né <coughs> mais lénen mom finalement la candidature du président Macky Sall d'abord mel ni di entreprendre une euh, campagne de communication pour accepter la population sénégalaise que c'est une candidature possible. Mais c'est lui qui l'a dit. C'est le professeur Ismaël Major Fall qui l'a dit. C'est pratiquement toute la coalition Beno qui l'a dit. Donc, kon, Sénégalais, nous savons. Nous avons Ousmane Sonko nous savons que l'aspect juridique ne règle pas. ay cassation boo demee cassation fa c'est une juridiction de droit ce n'est pas une juridiction de fait président Macky Sall lu mu entreprendre ci écarter des candidats ci élection lépp le réussir président Macky Sall lenn reculer en mars 2021 le rapport de force lañ ko imposé président Macky Sall reculer l'homme politique Macky Sall bu reculer ci décision pour bu reculer ci euh, objectif rapport de force moom imposé mais pas ay mécanismes juridiques parce que xeetu mécanisme juridique bu nekk gars yi développé nañ ko ci teewul mu dellu ginnaaw maanaam ay jooy sax dawul yaramam Khalifa Sall dafa jooy ba yëqat teewul dugg na dugg si Karim Wade nee dafa respecté justice maanaam l'aspect républicain yëngalu ko ba mu demee dañ ko euh, yóbbu au ñuuf donc lan mooy reculer loo waa ji du dara lu dul rapport de force politique donc Pastef ñaan ak Ousmane Sonko les sympathisants de Ousmane Sonko euh, solution bi loolu imposer un rapport de force boo xamante ne amul beneen issue bu dul président Macky Sall danaan bal à terre kaa la ñu waxtaan Ousmane Sonko bokk nga man bokkuma et si je pense que ni loolu moom mooy euh, droit parce que moom moo ko waxal boppam. donc finalement fii ak lundi ñu xaar ci suite Beauté ñu saar xaar lu Adji Sarr di teg suñu loxo ñu xaar complot politique bi nga xamante gis nañ ko na Sénégalais yëpp ñu xaar lundi mais je rappelle que ni foofu daan bu ci Ousmane Sonko c'est criminel sa révocation est de droit mën na révoquer en tant que maire donc finalement révo euh, la inspection des impôts askan wi fal la ñu ne la askan bi pal googu la war na tax euh, lolu ñu révoquer ko et je pense que entorse la encore à euh, la manif à, la volonté populaire des populations de Ziguinchor donc kon euh, inshallah bala procès bobu di taxaw wala euh, au moment de ce procès dinañ dellu ci wat joxe suñu jangat ci orientation juridique ak lepp lo xamantene yité askan wi la di leen gërëm bu baax asalaamualeykum wa rahmatullah